ñoo leen di may seen émission ngonal. alaaji waaw. nit ñi war nañoo yeewu nag ci message yi ñuy jot ci téléphone yi. yëg nga ne ni ngi ciy nax ay nit. naan leen lan da ngeen a gagné. luñ gagné. a ah, ay deux cent mille ak trois cent mille. waa ñoom ñi koy def lan lañ ci jublu. dóor. ñi ñii nañ bàyyi dóor. léegi bu ñu la jot liggéey lu lew. ah baax na. nañ bàyyi dóor te liggéey lu lew. ku yebu ko gis message jël ay dóor alalu jàmbur nax nit. Ah. sàcc yëfi jàmbur dundale ko sa njaboot seen biiru njaboot yëpp nekk ay tooke. jàpp sa njaboot sax sa jabar ak say doom ak sa papa ak sa yaay di leen dundale alalu càcc alalu client rek feebar lay def ci ñoom. Ah, nit ñiy feebar ñu naan feebar yi dafa bari léegi càcc see bëri <laughs> naxan naxaate bi ak càcc si moo bëri ci réew mi ku jot message daal xoolal li ñu war a wax waxuñu ko bari na si li ñu war a wax de ah wax tey kuy ñëw euh, gis nga kañu jaawale woon kañ njaay jaawale woon ni mooy député ba eh waxu député moom boo ko fi wax noo comme que ñoom ñoo fi député yee fi nekk naan ñoo moom réew mii erreur bi ngeen fi def barki amee nit ñi amee ñu huit yéen erreur bi ngeen fi def barki démb ndaw sa nag ca boppam kan que lëmbe assemblée nationale ba. waaw mooy ñëw. mooy ñëw fan. fii moom la Ndiaye jëli Ndiaye xëy na ci suba ba déema ko génn na dem. yéen du ngeen bàyyi assemblée. duñ leen ba xam nga lu tax leen ba. ñoom ñoo nekk ci péncum ndaw réew mi. waaw. war a liggéey liggéeyuñu. amee ñu. di cooki. waaw as lii du assemblée de arène nationale la. arène nationale. asalaamualeykum. mi ngi noonu di ñëw. aleykum ah, salaam ah cum. Diouf a ñoo ko bàyyi. salaamaaleykum firil kanam gi tuuti waay. Eh, waaw. Eh, waaw. dox di dugg ci kon kii la ah, woon kon kooku soxla woo ko woon. xam kay toj na fi wax na fi lu jëriñ askan wi. waaw waaye damaa juumoon. waaw waaw. kii laa waroon a soxla woon man gënoon a soxla. loolu nag aayul nag. Ah, kon waaye kooku leeral na. leeral na toj na fi. ma andi nag tey kii. waaw. fekk. mu demoon voyage ànd ak président de la république. waaw ñu demoon ca Burundi. waaw bunu ni menn ma ma yëg ko xaar ko buntu aéroport yow mi man mi ndax daf maa jaral <laughs> njaaya aay waaw bàyyi ko rek <laughs> traversé aay waaw jaral waaw mu ne teel génn ma ne ko ngonal mu ne ma Fatick ba pare doog ñëw ngonal Fatick ah moom mi Fatick la dëkk waaw ah très bien honorable waaye yow yow moom kër gaa nga nuyool waaw waaw waaw waaw bàyyi ko mu nuyoo bàyyi ko waaw asalaamaaleykum waa Sénégal salaam maa ngi leen nuyu yéen ñëpp fay nañ la honorable di leen bëgge la di nuyu waa Ngonal émission bi nga xamante ne moo darale Sénégal dégg nga loolu darale Sénégal lëmbe Sénégal dajale ñëpp waaw ci lépp jërëjëf ah wax dëgg yàlla ñu koy bëgge tamit jërëjëf ñëw naa daal uh-huh. jàkkaarloo c'est askanu Sénégal waaw Ngonal pour la première fois nag waaw te bu mu fi yem déedéet soo fi yem luy bu mu fi yam nekkoon ne rek may Ngonal chaque mi chaque samedi. loo ñëwee dootoo ñëwaat de <laughs> yow kii li nga ko indee. a ah. na ku toog fii leeral ko ba mu leer naañ xeexal ko palaasam. waaye nag loo xam-xam demba. waaw maa demba gën kon kooku kooku. nu mu tuddati kii ñëwoon keroog. Ndeye Fatou Diouf lu mu kii. ba kaw fee histoire. déet moom daal wax ji mooy. ñun bu ñu xamoon ni kii day ñëw. Hmm, duñ ko laaj ci yooyu. waaw mais boobu xamuñu woon ana Apulaay waaw boobu xamuñu woon ne kii <laughs> damaa pour jox image ba <laughs> ma bul fi jox image <laughs> bu fi joxate image wane ko ah wane image bi mu leer nañ na leer nañ maa ngi ku doon laajte Faly Ngoye waaw léegi nag dama lay wax benn affaire ay sëriñ dafay am ah. Ndeye Fatou Diouf am fi waaw léegi dama lay wax saa neex am fi Cheikh Ndiaye am fi caw am fi dama ne ah. dégg nga ah, kii xam na la wax na la loola neex nekk ca Fatick nekk ci assemblée nationale di défendre défendre peuple bi député du peuple la ngi nii déet am na député du peuple am na borom. waa léegi déglu ma amul borom député du peuple nag moo ko. amul borom xam nga El Hadj Diouf maay député du peuple. waaw maître El Hadj Diouf député du peuple. noo nekk député du peuple maa dëkk ca Baye Fall ya. waaw dëkk ca banlieue ba. waaw dëkk ca diggi diggi diggi Mbëbës. waaw maay maay maay député du peuple. waaw yow déglul. waaw <laughs> xam nga nag ca El Hadj Diouf ja. Eh. kii Ndiaye yaa ko fi indi. bëtam yi muy aj di ko wàcce ak di ko virgule ko moyal na ko arrêté. ay point de dérogation fii bu assemblée nationale. Eh. wala dañ fi jàmmaarloo maag moom xuloo ah. fi ngonal bi yem monsieur Moustapha Niass kon ay bëtam monsieur Moustapha Niass Moustapha Niass da loolu rek la xam calme <laughs> waaw léegi waaw mu def El Hadj ba met El Hadj pes ko ak eh. laa <laughs> altine nu mu tudd ah ndax ko xool man ko mu ki suuf niru naa ku ñuy pes ñëwal nga ba nga ko def met El Hadj ba mu pesal nu la def mu ne eh. Eh. waaw waa léegi rappel la ko waaw kay léegi man wax ji xam nga du woon man sax wax ji man déggu woon pes kon pes am na ci li topp sa altine nu mu tudd talaata lañ ko def <laughs> lañ def kan talaata yi yow mii waaw non waaw léegi bu la exagéré voilà léegi dañoo bëgg a xam waaw lu xew voilà li xew kay xam nga ko yéen a mag a gën a informé wu ñëpp waaw yéen kay leen li xew ma wax leen man la fa xew déedéet laaj Diouf loo ko def ba mu dóor la bon kan la dóor xala ma ñëw ah kon ñun li ñu waxee ba bu ma énervé waay doorut ma ñëw waa ñëwal doorut doorut xanaa dooru ko du koy wax pour neexal émission mais xam nga ne man ku ma xool Aïssatou Diouf waaw du ma ko ñuy xeelu sa waxatuma laak di ko dóor El Hadj da nga ko mos a dóor waaw yow kon El Hadj Diouf fan la mos a teg teg yow Sénégal ci fan Kaolack ñetti nit ñetti nit le plus fort reste dee ko indi assemblée nationale yaa ngi toog amul nombre de voix yu ko taxaw mun a ñëw assemblée eh. plus fort reste ko jàllale Kaolack fan la teg ci Kaolack <laughs> waa léegi Kaolack man maa ko ba Fatick laa dëkk 45 kilomètres mooy diggante Fatick ak Kaolack laaj bi fu mu ko jógu nga def fa dañ ko fii ci procès Hissène ndax mu bëgg a lekk xaalisu Hissène Habré lekk xaalisu Idriss Déby ne ko ust mu perte perte les fan la tëjagum ah, waaw léegi waaw lu ko jotee léegi problème bi la parce que maître El Hadj Diouf ça maître El waaw kii daa joteeg moom waaw waaw mais loolu maître El Hadj taxaw traité ko lu nga xam ni mhm. man man man rus naa koo wax ci télé mhm. maanaam kaddu gu bon ci jigéen. waaw waxul moom dong. jigéen ñëpp la waaw moroom jigéenam sax toog na fii ñaawlu ko. waaw loolu nan la demee woon coow loolu histoire ba ba maître wax la loolu. maître xam nga yéen a may tudd loo sax parce que man histoire boobu entériné woon naa ko bu yàgg. waaw la noon nga ko. entériné. waaw bu yàgg. waaw ndax du du programme ci man. maanaam. maanaam amul solo ci. du combat dal du combat parce que El Hadj Diouf jàkkaarloo moom defanteeg moom. doo ca jëlee ndam. Ah. waaw parce que ku ñëpp xam la ci ci ci ci ni mel ci jikkoom. waaw ji mooy dagg santé ñaaw làmmeñ député majorité bu fi mës a ñëw. wala président ma ma président de la République mës a ñëw ñëw. waaw képp ku ànd moom di jigéen nee na la caga bi dëmb bi. góor ñi mu wax leen la ko neex ñu duma ko. kon man waaw du yàgg dañ ko duma assemblée. Ah. te duma woon sa région Fatick la dëkkoon. kon El Hadj Diouf man du sama programme. <laughs> mais il se trouve que. waaw assemblée nationale. Mhm. waaw pour nga leeral rek ñi nga xam ne dañoo nekk ay député. Mhm. waaw yoo xam ne askan wi ñu fal wóoluñu. Mhm. dénk ñu seen kàddu. yebal ñu fa. ñu ñuy fay ci xaalis contribuable bi. kon dañoo war a nekkal askan wi. ci assemblée nationale. ci bi gën a rafet mooy. dëgg la ñu défendre seen cause. waaw kon bu ñu demee mu am li ñu naan commission des finance di am. waaw commission technique di am. su jeexee plénière yi soog a am télévision ci lay soog a ñëw nag. nga xam ne Sénégal yi dañuy jàkkaarloo yow booy wax. waaw ci la ñu mun a ñëw waxee seen wax yi ñu tàmm wax yu bon. waaw ñu jaxasee askan bi ñun waa majorité bi. dëkke ko un mois et demi El Hadj kenn gis ko te commission technique finance. waaw mu xaar ba commission yooyu jeex. ba télévision yi war a ñëw. ñu ñëw taxaw ci suñ kaw du dof doflu te balaa boobu tamit complot nañ moom waa opposition boobu mu àndal tey ñu ñëw ne dañuy jég ci kaw table di yore ta sifflet di mbib di pacanga. Eh. pacanga. El Hadj Diouf di pacanga quatre pam yu baax. Eh. pacanga ci xeetu. wantana mera xeex la. nan wantana mera. wantana mera yow fecc man ma yëg ci beneen taabu jàkkaarloo ak moom ne ko maa la ko dàq. salsa nga fa tàngaam ñëwal waay nga ne ma rapport Guantanamera <laughs> après ma yëg yëg defante koog moom ba mu saf saaf. yow dégg naa yamoo ci loolu da ngaa fokkati pis sifflet bi rappel ko. waaw. Eh, ah. kii bi laa ko dóor. laa ko dóor téléphone bi laa ko dóor ci digg mu na ma dama lay ma ne ko doo rey sa téléphone téléphone yu rëy yooyu ñu teg ci biir salle commune sa nga xam ne mën na 3 kilos. waaw nga ko dóor ci ndigg ci ndigg. <laughs> xanaa da daw. xam nga loolu certificat médical xajoon na ci. waaw yow kii day uti certificat médical fu dem ñu dàq tribunal yëpp fu dem ñu dàq ko avocat da ngaa gisagum kenn ku mu plaidel mu kañ. fu mu dem ñu dàq ko c'est un nulard. <laughs> maanaam du dara daal El Hadj daal vraiment du débat. waaw léegi yow. waaw du El Hadj Diouf rek parce que dafa ñëw jaay affaire golo. ak affaire rëy làmmeñ te góor warta rëy làmmeñ góor warta nekk dàgg sante kat te doo dàgg sante kenn ku ay jigéen du dof dof la ci ko ni ñu yore seen man sax ma voyagé woon waaw ma ñëw dégg leen bi mbiim waa yéen lu xaw fi ñu ne na non Aïssatou Diouf bàyyi bàyyi noonu bàyyi noonu man du ma bàyyi noonu ñu yamul ñu yoon may ñëw fii di ko fi mbiibee dañ ko fi mbiibee jóg attaqué comme ñag loolu fin mu geen ba ñu leen dóoree ba ñu sonn nag dóor nañ bàyyi di wax li amul dañ nee nag ba pamte pamte yëngal leen ba ñuy wëccu Eh, dóor. waay yow. waa ku leen doon dóor. laal ñoom jigéen ñi. i ah. eh xam ngeen yéen. waaw <laughs> waaw xaaral ma wax. les femmes. waaw waaw les femmes. Cheikh Aziz. Ah. ay femmes. waaw bu ñu jàppee ay hommes. di dóor ni dañ leen a dóor ba seen xel dal. parce que homme yaa fayiwul. homme yi mënuñoo fay parce que dañoo tooñ te ñàkk fayda. dañoo tooñ non parce que dañ leen a fayiw dañoo dóorul rek ni yéen. mënu waaw def nañ niñ mën kay. xaaral ngeen a leen mën parce que xalaatuñu woon ne dinañ leen attaqué. <laughs> yéen lan ngeen leen doon dóor. ñu dóor leen a dóor bañ ne waa léegi. waaw léegi <laughs> am na nag ku ma ci dégg. waaw mu toog ci télé bi naan man dóor naa ko ñuy dóor man ma nekkoon ministre de la république kooku dañ jigéen ñi leewu ko. ku ndaw a ndaw ki leewu ko. kàlla uh, boole koog siis ba. waaw ba mu def ko guuta mbaay loo reere biig. jaar la ko ca buntu ba nekk ca ah, toilette yaa waaw léegi d'accord ok. donc léeg-léeg yow ah, dañuy góor yi dara waaw léegi defal ndànk Cheikh. Ah. Cheikh waaw man xam nga lu ma jaaxal. Ah. ñoom ñun dinañ leen wóolu. Hmm. bàyyi leen ci pencum ndawum réew mi. Hmm. Hmm. wax ko ca kaw. bàyyi leen ci pencum ndawum réew mi. ñu nekk ci pencum ndawum réew mi moom mu nangu ni. dóor dóor na. dóor nañ góor ña moom na. waaw nangu na ni. paccaan nga salsa ca kaw sunu chaise ya. ca kaw sunu taabal ya. waaw nangu ni. jël na seize mbuute mbaay looreere biik sànni sànni mhm. yooyu yëpp moom am na gore ko waa waaye léegi yéen loolu fu ngeen ko teg fu ngeen ko teg teg ko ci représenté suñu peuple dignement rek ah peuple bi da koy défendre ah, ci ah, ah, courant bu ñàkk bi défendre ko ci ndox mu ñàkk mi ndox mu naqari mi défendre ko ci war a faju faju mais da nga koy défendre ci ko bu fekkente ne dañoo dem ba war a war a càmbar li nga xamante ne mooy faj soxla askan bi ay nit ne ñoom faluwuñu ñi ko moo tax dañ ko war a yàq dañ leen war a guuta bàyyi génn ci biti ah dafa ne kenn du fa parce que femme bi fi ñëw dafa ne kenn du dañoom dañu ni kenn du voté budget bi waaw ah ñoom loolu la ñu wax hmm. mais commission lañ njëkkee waaw ne commission ministre ba ñëwoon environnement keroog laaj ko ku la neex bi bal de moo fa nekkoon dafa jomi ci yàlla ñun ñu ne kenn du ko fi defee léegi nag ñun waa majorité ñoom dañoo civilisé dañuy bañ Sénégal ngàbb leen comme nii di wax ne dañ fiy def dañuy xeex dañuy xuloo mm-hmm. ñu dem leen seetaan waaw est-ce que amu leen neneen nu ngeen ko waroon mën a fajee lu dul. génnee leen rek moo koy faj. génne te boo leen génnee ñu toogaat ci télévision dañ ñoo génne dañ ñoo néewal mel ne ñoom ànd ak ñoom ca wax. mais Moustapha Niass lu tax moom mi président assemblée ah. nationale. jëlul ay devant am bu dogal ci loolu nga xam ne xeex du am xeex bi am. ci foofu daal force de l'ordre mu nga fa woon rafetlu police nga fa gendarmerie nga fa xeex boo ko seetloo. ci assemblée nationale du du du gulet. assemblée Sénégal ak assemblée réew bu France ak bu. ñoo ñoo dàq xeex Mauritanie. déedéet eh ñoom rupture la ñu waxoon. ngeen waxoon non non non rupture ngeen waxoon. waaw seen biir loolu day am. rupture bu amee kay mooy xeex loolu da ci am mbéjante yooyu yëpp day am. fa c'est la première fois ci ta ci nguur gi. yéen daal rupture ngeen waxoon waru leen ñëw rupture la wax rupture boobu nag. waaw président Macky Sall ñoo defar ba mu baax rafetal ko. waaw teg ko ne lii laay doxalee sama réew pour am transparence am rupture ci lépp ci lépp lu bon lu fi daan am. ak loo xamante ni da daan da daan da daan da daan freiner développement réew mi la moom la ñuy bañ. waaw mais yéen El Hadj Diouf moom moom àndoon na fekk Macky Sall benn moment. àndut ak kenn boppam la àndal. Eh. kooku gëmul dara. ah eh. bàyyi jàmm kooku àndal. da lay kenn kooku su ma ci buntu bi mu jaar ci bee. da laa ragal boo ko ne ay sur Diouf ngi ñëw mu départ. daw. waaye yow saa xanaa da ngaa yor jaan. dama koy dóor ba mu a dee. waaye nga la. waa jeex na. Ndiaye waaye Omar Sarr Omar doole jee bari nag. Omar Sarr. waaw jigéen ñee ko dóor ba daane ko xotti veste. waaye ñoom xanaa ñëpp lañ waaye xanaa da ngeen a tax téere. waaye jigéen ñi dañ mën. dañ ne la mën kon yow da ngay dóoree man moom daal moo xam naa dóor nañ ko ba xotti weste te lépp fekkee naa ko waaw léegi mais nag noonu moom moom dafa am jëwu man wóoruma parce que xaw ma ko maa ngi koy soog a gis moom dafa am jëwu bëri histoire waaw jëwee nañ ko ko xam nga bëri histoire moom c'est relatif waaw mun comme neex ñu ne ko kii dafa bëri histoire mais da nga fekk ci histoire ba xam nga yàgg naa ci Sénégal kenn tudd sama histoire waaw bi ma ñëw ci assemblée nationale fekk fa ñoo xamante ne ay mag yu réew lañ Eh. ci la sama histoire feeñ. loolu nag baaxul nag. dañoo xamadi. xam nga waa opposition bi leen dal. Ah. ñàkk pare ñànki yëpp waa senegal lu dee ngu tojaanga gu dee def nañ ko ci biir réew mi. mooy opposition bi. opposition boobu. opposition bi tas tasar. ne dañuy fontoo nit ñi. waaw ne kenn du fi liggéey président du dem te ñu àndal du dem loolu du dëgg. ñu de ñaani bañ na taxaw na de. ñaani bañ na loolu loolu opposition la. waaw loolu PDS du PDS de. kan la loolu waa Y'en a marre la. waaw mooy opposant la rek. opposant du PDS rek xam nga nag man. waaw Y'en a marre ci ñëw. waaw waaw mais mais est-ce am na ay sanctions yu leen def yéen ñu dóore. waaw parce que am na ay. daan moo ñu sanctionné député. ah waaw loolu loolu nag xam waa nag honorable honorable honorable est-ce que nag yow yaakaaroon da ngeen di abusé tax nag waaw ma ñëw rek honorable ndax nag yéen député ngeen ngeen di ay exemple ci réew mi ñu protéger leen sa manda kenn war la cee tëj sa essence doy na boo dëkkee Fatick sax boo ñëwee Dakar am nga logement. man 300 litres laa am. da waaw baax na. baax na moo tane neen ñeneen ñi amul am ñu amut ba tey. mais donc yéen 1000. yow lu tax nga am 300. ma ma bokk ci euh, ñi nga xamante ne ñoo fa gën a néew doole. waaw d'accord kon sa salaire moo fa gën a ndaw. waaw yëpp ci rupture bi dama di ko muñ. Ah. waaw ban parti nga bokk. APR. député du département de Fatick. maa de woon nekkoon te de liste département Fatick. Cheikh Xuusal. waaw léegi man dama yaakaar ne da di abusé. parce que dañ leen a protégé de trop. ngeen yaakaar ne li leen protégé permettre na leen ngeen def yenn yi. non non aussi est ce que ne boo ko par exemple tey nga nekk député ku mel ne président par exemple ah? mhm. wala nga saaga ku mel ne Moustapha Niasse tey. Mhm. kooku même boo nekkee député. waaw am nañ droit dindi sa. humilité parlementaire humilité waaw mhm. waaw ndax am na délit yoo xam ne boo ko defee dañ lay simis di même boo nekkee sa mandat bu dee yaa ngi koy doxal tamit mhm. dañ lay dañ koy sumi dañ lay sumi defee la mhm. mais euh, am immunité parlementaire taxul ngay def la neex di wax la mais bu ngeen dóoree maître El Hadj Diouf mu dem wuti certificat médical perte leen plainte du mujj kenn kon El Hadj Diouf bu parce que ay député ngeen bu saagaa nañ ñu duma ko duma guñ ko sax mais bu saagaa yoon a ngi fi am ngeen yoon bu saagaa yoon mën ngeen dem ci yoon yoon a ko wëccu yoon bëgguñ koo gis nag golo la Eh, eh, eh, dëgg mais mais mais yow. ana jigéenu si sax ñoom. ñan jigéenu PDC ñoom ñoom kii femme Bambey bi ñoom ay dëmbooj. ñu nga fa ay Woré Sarr ñu nga fa. waaw ñooñu ñooñu. ñu nga ñoom contre attaque ñu seen góor ñi. raam ni kuy naan sàngara. dañ ñuy nemm. ay dëmbooj gi toog jàkkaarloog ñu xam nga ma gën a mën ci àddina. Ah. kuy wax lu dul dëgg gis nga boo boo li ngay wax boo ko ñemee. waaw da koy wax bu ni ko teewee bu wanee ginnaaw nga wax ko. damaa wax ci télévision yi ma dem yëpp ne. Mhm. histoire yi am yëpp. Mhm. ay dëmbooj fi mu toog jógu Ah. waaw Aïda Mbodj. dafa bëri personnalité yey daa bëri personnalité personnalité. Ah. jinne xam na jaxatu. jinne xam na jaxatu. lu jaxatu di def jinne. waay jinne du lekk jaxatu jaxatu daa weexaat. <laughs> da ñëwee ne patapatiral. waaw. ka nga xam ne nag moom mooy la dindon de la farce golo gi. nga xam ne événement bu am mooy def ay manière am moom lañ yónnee ne ko demal nga nga nga nga nga jiitu. tooñi moom ñoom toog ca ginnaaw. ay dem moom sax bu xeex gis dañuy seey. Aïda Mbodj est-ce que bañu woon ku xotti garaam bu bam wala xaw ma de man de man xam nga man du ma toog ci télévision di waxal ne waaw Aïda Mbodj ba mu ñëwee ba mu bi ba pare waaw dafa toog tranquillement jàpp boppam gis la def mooy dëgg ànd ak personnalité loolu mooy dëgg ah. bi muy daw di xeex ak moromu ministre am ànd fekk defante na fekk ku nekk fii. mais xanaa kon tey la ku nekk na danga ngaa xam xam nga sa morom. kër gu am golo xam na golo xam kër gu bëri xaj. waaw très bien yéen tolluwaayu Sénégal fi mu toll nii tolluwaayu senegal ak yéen APR ni nga nekkee ci réew mi tolluwaayu Sénégal sénégalais yi euh, presque la plupart ñi ngi wax ñi ngi ñi ngi ñi ngi xaddi da ngay dugg ci internet bi di dégg ay Macky Macky bett nga ñu Macky wor nga ñu mati naa nga mag tolluwaayu senegal nan nga ko jàngatee fi mu toll. ci tolluwaayu Sénégal ci la. réew mi. réew mi le pays naka jox ñu ay exemple bu ne. jox ñu ay exemple demal ma ci àll bi. waaw mhm. lu def ci àll bi nga fekk fa. demal ci àll bi par exemple yoonu Fatick yoonu Jawle. waaw nga xam ne xale jigéen ñi bu ñu daan wasin da ngay gis euh, yàlla tere nettali ma kenn. seen bakkan des si yoon wi. waaw enclavement. waaw yaa ngi dégagé wu un partout dans le Sénégal dans le Sénégal de profondeurs. Mhm. nga xamante ne tali yaa ngi mel ne Tulle ak Male. waaw mhm. gisatoo village boo. xamante ne tali moom tali moom sur les cent villages cent villages nga jël ko Sénégal su ma yeboo ne quatre-vingt-dix-sept ya électrifié nañ leen. soo demee. Mhm. ci mag ñi ñu ngi faju te duñu fay dara. super bi booy wasin am problème césarienne kenn fayatul dërëm. super dama ne nga dem si biir Sénégal des profondeurs bourse familiale bi ñuy dimbale njaboot yi nga xamante tey dañ seen doom dafa war a jàng école. d'accord te amuñu lu ñu jëndee kaye wala bi ñu leen di jox cent mille dama ne euh, li président def ci réew mi. lekk gi demal ci waxal ci Ila Touba bi nga xam ne moom la murid yi bëggee. waaw lekk gi Dakar Touba bi dëwlin bi essence bi ñëwal ci neuf mille cent de riz en deux ans ci nga wax nga dem ci agriculture bi ci Pape mm, kii Seck ministre de agriculture. waaw moo fi def loolu. ngay bay li ngay dundee du dundee li ngay bay ceeb jigaaneetuñu ko dama ne. li nga xamante ne président Macky Sall def na ko ci réew mi buñ ko toogee di ko lim dafay du jeex fuuta gisa toof boo daan dem di def ñaari fan ci yoon wi. Mhm. ndax tali bu métti. léegi daara Linguère moo fi des tuuti lépp guddaloon nañ ko guddaloon nañ ko. Mhm. dama ne fi ci réew mi. nga dem cee ci pôle urbain de jam ñaajo lan moo fo manqué dara nga ñëw ci ci ci jam ñaajo mbuur kii baa ngi taxaw essence bi essence bi ñu wàññi ko ba mu yégee la wàññi ceeb bi ak diwlin ji denrée de première nécessité dama la woon rek lay naan dama bu fooru <laughs> du ma ko naan. Eh, bu lanul bu fooru du ma ko naan tey bu foor bi la def sax te forte bi la. yaa ngi may yàqal yaa ngi may yàqal. li ma bëgg a wax ci ki nga xamante ne moom moo fi. Eh, da ngay génn de bu ma da ngay dem de bu la ma yàqal. da ngay dem de parce que man président Macky Sall dañuy faral di wax ne. moom amut Issa Dialle. waaw Issa Dialle. ñuy wax ne moom. <laughs> xam nga bu ko joué ci wii rek ngeen jommi. <laughs> ma ne xam nga président Macky Sall. waaw da ngeen jommi. dañ naan. Mhm. waaw moom amul ku ko waxal. waaw dañoo manqué de ay ku ko. dëgg la mais loolu dëgg la. mais man wax rek mooy sama liggéey. Ah. te xam nga itam wax nekk sama liggéey. Hmm. damay wax ak ki ma war a waxal. ak ki ma bëgg a waxal ak ki ma gis muy def lu dara wax. Hmm. ak ki nga xam dama koo xam parce que xam nga gëwel tey bu la xamul du la mën a woy say. waaw du mën a say maam waaw moom dama koo xam moo tax. ma nekk nag géer gu set wecc. mais nag mais nag suñu ñaari kër yi jàkkaarloo. Uh-huh. ñu grandir ensemble ma di ko gis. muy màgg di jàng di dem di ñëw. Hmm. ku yaru baax te jox ñëpp cër. honorable yàlla may ko lii. waaw ko buñ ci jàppul soxor ñun waa Fatick rawatina nag man. man jigéenam laa waaw man déedéet maa koy waxal yow nekkoo fi pour tagg ma. dama ko tagg ko damay wax def. li mu def ci réew mi laay wax kay non non damaa bëgg rek dama ne waaw damaa bëgg rek xale bu feebar am juróomi at waaw kay fayatoo ñaar fukk waaw waaw étudiants yi étudiants yi université virtuelle ngi nii la déconcentration de yi ñoo doon xeex yow ma ne la université xoolal xoolal mais xar ma yàqal ba pare. Eh, eh, dama yàqal bu ko yàqal. Eh, bu ko yàqal waaye mais non kii mënul ñëw ci sunu kër gi ni daf ñuy commande ma. bu ko yàqal dinaa leen commandé. ah non non non non non honorable nag doonu commandé nag xam nga. mënoo ñëw ci kër gi doonu commandé nag posé yow dèjà lan gerte. waaw nga dëgg daa war a am gerte a am gerte ndax tey forte bi neex na trop wax ne moom la ñu béy ci réew mi. waaw waaw eh. kenn jëgaanetul gerte. Sénégal émergé. kilo banque nekk en développement. waaw waaye yow xam nga indi gerte gi <laughs> te waroon naa fay fekk tamit ceebu waalo bi. waaw gis nga fi dara eh, yaa ngi publicité nag suñu kër yéen yëgu leen la xaw ci réew mi. lu xew ceeb ah. bi bëgg naa ci sax. waaw di nga ci am ceebu waalo bi. waaw wala ngeen ko fay teg teg fii gerte gi. waaw yaa may dégg. mais yooyu nga fi tudd yëpp ndax Sénégal. loolu moo ko hmm. ce n'est pas accessible. c'est dafa am benn rang social rek boo xam ni mën nañ ci teg seen loxo beneen rang social bi mun mënuñ ci teg seen loxo. da ngay wax rek. ah damay damay. da ngay damay fen damay fen. Aram. waxuma da ngay fen de. <laughs> ñu ngi toog am wax la neex. dégg nga waaw ah, lu tax. dama ne. Ah, man ci réew mii laa dëkk. moom ah, moom moom Me El Hadji Diouf doon woo baat sax. waaw dama waaw eh, bu ma ko waxati. dama ne. ah non loolu dëgg li mu def ci réew mii lañ doon wax. waaw bu ci doyal. parce que damay député nekk ci assemblée nationale. waaw yàlla def ma mun a bind mun a liir. waaw tuuti rek nag. ah da ngay wax français foofu jëmmentu mun naa jëmmentu ijji. ijji waaw jëm fer naa ijji ci français. sujet verbe complément. Ah, dégg nga sujet verbe complément. waaw dégg nga ma ma ma xam li ñuy wax. <laughs> ñii ma bind rapport ma di ko liir. bala maa voté budget bi wala loi bi xam li mu doon. kon man war naa mun a xam li ñuy dugal ci li ñuy li ñuy dugal ci gerte gi li ñuy dugal ci hôpital bi ci ci bi. lu ñu dugal ci tali yi lu ñu dugal ci leneen ak leneen ak leneen. waaw loolu leer na waaw loolu leer na waaw ñëwal. kon li nga wax ne président def na ko fii yëpp ci réew mi. waaw nga gis ko te nga wax ko suñu émission bi waaw ndax ñeme ngeen 2017 bi ngeen dem jàkkaarloog opposition bi campagne. électorale présidentielle nay suba ci suba. da ngeen ko gagné. c' ah, est gagné d' avance. ah c' est kon en différé la taay kee gagné d' avance. bul waxati loolu de. kon en différé la oh fu ko teg. ci ci réalisation yi Khalifa Khalifa Sall ngi ñëw de. ak Karim. pavage na wax ak ak riz lait maternel. kan kan Khalifa Sall. na wax ak a ah xamoo pavage. kuy pavage pavage mooy kan ah déet. pavage ak ah, riz maternel honorable kuy pavage ak lait maternel. non oh, c'est que yéen la xaw ki dëkk bi am ñoo xam ne c'est des tonneaux vides. c'est des tonneaux vides tonneaux vides ils ne font que a kar de man kenn du ma kar. waaw demal bukki bu yebee gaynde gaynde waaw demal rek te doxin wala waaw demal dama ne président Macky Sall waaw li mu def ci biir réew mi waaw ak Sénégal yi ni ñu ko bëggee ak 2017 barke waxuma suba ah. suba bu ñu demee xam nga élection yi xam nga élection bi ñu la sant une semaine la une semaine la ci une semaine la. waaw gis nga ñu nekk télé plateau télévision naan réel réel réel. yore ay naan waaw man intellectuel la cest à ma bindoon man li ma waxoon. Hmm. dara tekkiwuñ ko seen kër mënuñ ko faal mënuñ faal génne ñetti nit waxatuma la te élection nag population bi la. Mhm. loolu dëgg la en hmm. ci biir kër yi lañ nekk les hommes les hommes on la gëm. on les li ngay def. mais du wax ju ñaaw ak yàqalaate ak soor. ak yàq xelu nit ñi président Macky Sall dafa proposer référendum dafa ne ba mu ba mu waree falu nekk candidat tudd Macky Sall candidat. waaw da woon su ngeen ma falee dinaa wàññi sama juróomi dinaa ko wàññi sama mandat. jëlee ko juróom-ñaar indi ma doon ñëw waaw <laughs> maa leen gën a gaaw ndax damay bañ émission bi jeex. waaw nga sëgg de wala yaa ngi koy waaxu. <laughs> waaw loolu gars yi tude ko wax waxeet. ma ñëw mu jël juróom yi mu ne dama ko jëlee juróom-ñaar indi ko juróom. Ah, indi ko juróom yombewul noonu. Mhm. xalaatam la. suyeem la. Mhm. mu wax ne ko koo bëgg. waaw bëgg-bëggam la. a ah, yàlla def ñuy dem di dem di dem di dem ba ba élection jot mu gagné. waaw Sénégal yi voté ko à 65 pour cent. waaw ah mu ne man ka la ma waxoon. Ah. maa nga ca ba léegi. waaw ñu ne ko déet réew mi dafa am loi. Mhm. am ay règlement. waaw li nga mun def kay mooy nga soumettre ko conseil constitutionnel ba xam lu lay wax. mu soumettre ko conseil constitutionnel conseil constitutionnel xool ko càmbar ko toog ay weer oo ko ba mu ñëw mu ñëw ko ñun daal lii lañ gis ne moo mën a ne sa mandat bii ba ngay waat juróom-ñaari at nga waatoon te dëkk bi dafa am ay loi ak règle mënoo koo teggi léegi ñun lii lañ gis moom tamit mu ne ah man nag pour être conséquent ak it jox peuple bi li moom naa dem référendum daal di ne Sénégal yi léegi kat. ay la yéwén la ma bëggoon mënut a nekk. waaw conseil constitutionnel ka mandat bii du ci bokk. Mhm. a ah, bokk ci. gaa yi nañu wax waxeet la. wax waxee dafa am ko moom sangoo ko diwoo ko naan ko yow yóbbaale na ko. kan la Abdoulaye Wade. je ne suis pas eh, d'accord. ñun moom muy wax waxeet. ah léegi Macky Sall président Macky Sall léegi président Macky Sall eh, moom. président Macky Sall ba mu jëlee ba mu jëlee demande am. teg ko ci ko table ji. ci conseil constitutionnel. kalang la wax waxet war a je ne suis pas wax waxet mënu koo def je ne suis pas d'accord moom moom président Macky Sall waaw mu ni suweem la woon mu ni dina jële juróom ñaari mhm. at indi juróomi at ah mhm. waa léegi Ablaye Wade nag na maa ni woon damay def nangam mhm. ñu ni naa ko waaw yaa ni woon na ngay def mu waxuma ko ñu ni ko yaa nga wax mu ni waxuma ko mu ni bu fekkee kon maa ko wax man man waxatuma ko moom kay maa tey loolu woon so déedéet Ablaye Wade amul lu mu dul wax ci dëkk waaye déedéet yow daa man xam nga man Abdoulaye Wade seen turam laay bañ a dégg wax seen bopp mënu ko dégg parce que lu tax ngeen gën a rafetal dañ wax ci ki xew ci jamono lu tax ngeen gën a rafetal wax ci ki wax ci jamono ki xewte opposition ne du ko gis ak bët gëmuñ ne président waxuma wax loolu dama ne lu tax yéen seen bos ngeen war ko gën a rafetal ki bosu Abdoulaye Wade parce que ñun lu rafetal la ñuy def ci dëkk bi ah non non waxuma wax ma ne lu tax dañ def ci dëkk bi wax waxeet gi oh, wax waxeet amul président Macky Sall deful wax waxeet nee naa la defu ko nag dama ne bu doon def wax waxeet du del déposé dëgg la demande am ci kaw table léegi nag da ngay xuus nag mu leer li ngay wax da nga xuloo wax da ngay défendre sa bopp non di défendre président de la république Macky Sall wax ñu kon lu ñu convaincre ñun damaa wax naa ko dama ne waaw président Macky Sall dafa dem wax ak dafa nekk candidat mhm. ne moom dafay def juróom-ñaar juróom jëlee juróom-ñaar indi juróom waaw mayuñu ko loolu suñu loi suñu consi suñu conseil constitutionnel ne ko. mu demandé ko avis mu toog ba mu am quelque temps mu ne ko lii moom mën a nekk mandat bi mënu cee bokk. Mhm. comme mënu cee bokk nag léegi dafay def référendum. mais nag alaaj bu demee référendum nag xaaral ah, ah. daal di laaj. waaw waa Sénégal. dëgg la seen xalaat. waaw léegi xam nga man lu ma jaaxal ñoom ñooy exprimer moomu nag. xam nga lu ma jaaxal yéen li ngeen soxla wii bi wala noonu. xam nga lu ma jaaxal xam nga lu ma jaaxal Sénégal waaw. man foofu tamit am naa fa tuuti souci quoi. xaaral xaaral xaaral non non xaaral même tuuti. xaaral dama mën ma bëgg a wax xam nga moom dafa ne bëgg expliqué. damaa bëgg expliqué damaa bëgg mu leer ci loolu ngay wax. waaw ci loolu laay wax bëggoon a laal constitution bi. Mhm. bi. waaw ñu ni ko. doo ko fi laale ne touche pas. na laal constitution bi. waaw. foofu tamit am naa fa tuuti. c'est contradictoire xam nga. waaw waaw président de la République non seulement xam nga ñoom li ñu gis rek. waaw ci biir ci biir ci référendum bi. ci projet bi leen président Macky Sall waa opposition. xam nga lan lañ gis. Hmm. juróom-ñaari at rek mooy seen problème. amuñu beneen problème xam nga dugal na ci fukki poñ ak juróom yoo xam ne benn bu dee day jëriñ réew mi xam nga dañu ne ñoom dañuy voté non. waaw ñun ñu ne dañuy voté oui. waaw waaw du ñoom dañ ne juróomi at lañ bëgg. waaw du juróom lañ lu tax ñoom ñuy voté non te loolu oui bi te te lu tax kon ñuy ñuy voté bu ñu wotee noo juróom lay nekk. waaw waaw. kon ñoom xamuñu ni ñu bëgg ils sont contradictoires avec eux-mêmes ñoom juróom yi lañ la juróom yooyu Macky Sall président Macky Sall def na ko ci biir projet bi. projet bi hmm. waaw lu tax kon ñoom ñu di ko bañ. bañaale li nga xam ne mooy reform euh, foncière mi ngi ci biir ci poñ yooyu président ah, Macky Sall 15 points la 15 points la benn benn ñuy bi nga ah. xamante ne day indi day dindi frustration yi nga xamante ne moo am ci mbirum domaine. waaw ñu déedéet déete waay mu ne maa bëgg réew mi. waaw pouvoir public ak pouvoir euh, pouvoir ñu defee séparation la laïcité. Hmm. mu dugal ku ci ne séparation des pouvoirs publics et des religions. Hmm. ba nga xamante ne yow tey Sanekh boo doon président doo ñëw taxaw ne pays islamique laa bëgg Sénégal damaa bëgg mu doon pays islamique. wala nga taxaw kii waaw caw taxaw ne. waaw kenn du ko kenn du ko wutalu péete ak saxuwaay. waaw te loolu. waaw loolu. lépp a ngi ci référendum bi lépp a ngi ci biir te depuis 1960 la fi nekkoon avant ça 1960. Mhm. yaa ngi may mhm. kon moom dafa def lu consolider les acquis démocratiques. Euh, dégg naa am na ci yoo euh, xam ans la ñu wax. ne woon ne woon nañ tamit. 70 ans. <laughs> at neexoon nga présenté wu. waaw at boo am na ngay présenté wu. waaw léegi 75 ans la yem. boo amee 75 ans dootoo présenté wu ñu ne déet waay waaw am na neex. waaw pouvoiru assemblée nationale. waaw bi nga xamante ni dañu am droit fekk nga nekk ministre ñu contrôler ba seetlu ngay def lu mu doon. waaw kenn mënu ci dara ndax ñun ay ñu som suñ suñu suñu liberté bopp léegi nag ndax dool peuple boo ñu may doole. léegi mën a yokk nag sax DG yeeg ñoo ñëpp ci lañ ku ñu neex ma xëy rek dem ci Cheikh Kanté na ko ma seet la ngay liggéey. Ah, ah, waaw. waaw waaw. mu ne la mi léegi. waaw kon loolu yëpp mu ngi ci wéebeel ah. non bi. mais nag nañu xam ne opposition. ba nekk opposition Sénégalais ba nekk Brésil. waaw mbaa mu nekk Suisse. waaw mbaa mu nekk France. waaw bu bëggee doon député foofa lañ koy tànne ca foofa mu investir ñu investir ko. Hmm, mi ngi ci 15 points yi liberté tamit mi nga xamante ne non c'est-à-dire président Macky Sall dafa bëgg a defar ginnaawam ba nga xam ne ëllëg bu fi jógee hmm. Sénégal yi ba ñu amati yenn problème yi. mais ñoom ñu ne bëgguñu loolu sànq Macky Sall tudd président Macky Sall tudd na jigéen bi ñoom ne moom référendum bi da ko waroon jëlee juróom-ñaar indi ko juróom loolu nekkatul bii day continuer seen xol yi moom la mënut a supporter. waaw référendum waaw constitution nan lañ koy plombé ba nga xam ni comme par exemple man damay ragal tey jii bu Macky Sall defoon ñu ni deux ans am dem par exemple. ñenn ñëw jëlee waat ko cinq ans. yóbbu waat ko sept ans. il veut verrouiller la constitution sénégalaise. kan dafa am dafa am durée bu nga laal wala la wax dafa ne hmm. lii muy def di dafa bëgg bu ëllëg si biir ku munti ñëw mu dindi lii parce que seen naa ba ne réew mu war a développé réew mu bëgg a dox un droit hmm. ci yii rek sart yi la mun a tege pour mun a avancé dégg naa France 1964 xaw ma 54 64. ba mais réew moo xam ne laaluñu seen. xam nga ñoom li seen problème. waaw dès lors président Macky Sall rek. damay jënd juróom ñaar def juróom. juróom loola sottiwul juróom ñaari war a kon ne te pare woon pour jong jong kon pour tëb mm-hmm. la ñuy dem defe ne noonu la ñuy def waaxoo dem ca nguur ga loolu moo leen sonal mais alaaji naan dañoo ànd ak ñaari ñaar waaw man de am naa ku ma ku ma jot téléphone mm-hmm. jamono yële mm-hmm. nee naa ko li nga wax ni de bu ma ci tuddoon sa tur mu ñaaw mm. parce que ba ñu waxtaanee dafa bëggoon ñëw fii ma ni ko yow moom nag bokkul ci ñii kan ngeen defe nii bu ngeen demee élection moo mën a jiite réew mii man askan wi rek laa fi nekkal. mu ni ma. Macky Sall ni muy jiitee man moo ñu neexul ma ne ko lu tax mu ni bàyyiwul xaalis bi circulé deful ni Ablaye Wade daan def loolu de la ma wax. parce que Mouhamad lii de la ma wax. neex ko ah. bu la ko waxee waaye déedéet man kay du ma ne nee ko damay nettali rek. kooku nag wax waaye eh, xam nga lan la réew de waaw xam nga yow mënoo. bàyyi ko bàyyi ko mu ñëw bàyyi ko mu waaye mënoo ñëw waaw xaas bu salte ba moo bëri woon te bon te salte te xasa xun loolu moo fi jeex da nga fi wax euh, ne xaalis bu xaalis bu sale bi moo circulé tul xaalis bu set bi mi ngi circulé waaw léegi Karim hmm. situation lan nga ci xalaat yow kon moom daal xaalis bu sale bi ñu koy jiiñ ak yooyu yëpp dëgg la ci moom wala du dëgg waa xam nga Karim Wade waaw euh, man sax am naa tuuti ci moom yërmande ndax moom lam la mu doon def la mu def bañ tëj ko su xamoon ne dañ bu xamoon ne ci nii lay kon du ko def bu démb doon tey du ko def. Mhm. parce que Karim Wade papaam da koo dénkoon li ñu naan trois ministères celui du ciel de la mer de la ter boo ci doolee benn muy da yëpp lu baax. Mhm. ñu dénk ko ko mu defoon ne du jeexale ci dara moo papaam ñu nekk di yaakaar yu ba ci réew mi. Mhm. tibb gas denc ca banque ya. Eh. rawale bitim réew. Eh. yaataa. wóor te ñu dóor ko ci bureau de vote am fii en 2009 ma yaakaaroon ne am réew bu ñu la ko nga ne da ngay oote intellectuel ak ak ak nekk patriote am na neneen noo war a doxale loolu lii Abdoulaye Wade fexe ñu wax wax mu jël doom bi dugal ko ci jox ko ministère bàyyi ñu def ko nag moom démb barka mhm. démb ah ce qui est fait dem na justice réew mi indépendant libre mais mais nag mais li ma jaaxal Cheikh. Oh, waaw waaw waaw dañoo xool fépp gisuñu dara. déedéet man li ma jaaxal sax li ma jaaxal. waaw mooy ñoom ba ñu paree si Karim. buñ gis te xool na fépp gisuñu ko dara. dañoo tëj CREI ba léegi yéen da ngeen tëj CREI de. tëj CREI da ngeen a arrêté. CREI kenn du ko arrêté. ana ah, ah, si au suivant. déedéet dinañ am. yéen daa mel ni Karim suivant les suivants viendront. ah. petit à petit rek. yéen pare ngeen ñeme ngeen dem CREI yéen. ñun CREA dañoo def lu ñu yóbbu CREA sax ñu ànd ak président Macky Sall du wax taxaw nag si réew mi ne leen ku fi def fi warta def bu ñu la jàppee sama yoon ne wuti fi jógee excellence nga ne yow président dina la def ministre kan man man war na mun est-ce que bëgg gi sax est man yow nga ne sax est-ce que mi nii ma gis nii hmm. est-ce que xam ne dañ ko leen teg dañ ko teg ahan kay waaw que a taxaw def discours une heure de temps en a ay tubaab rek fa nekk nga war a def discours en français une de temps nga taxaw waaw yow suñu verbe bu complément nga amul problème bi le fait de parler français du du càgg ne da ngay dem ba jàng lu sori sori da ngay am le verbe facile am don wax. tubaab bu leer. Sénégal nangu ko. man gis naa ay ministre yoo xam ne man tane wuñu ma. yan ministre ban jamono ban pouvoir la loolu xam na ne ban pouvoir la ay yow tamit bii. seen ah, pouvoir ah kon yéen da ngeen di utiliser ñoo xam ne jàngu. ah yow man xoolal man j'ai vu des ministres yoo xam ne bu ñu def discours man damay bëgg a dem làqatu gi te dina la. ah kon kon yéen da ngeen di utiliser ay nit ñu. xaw ma ci dara mais dama ne ne. am na ay ah, ministres yoo gis ci réew mi fii. waaw ah yoo xam ne CM2 la ñu yem. te pourtant on les a une fois appelé ministre de la République. Ah. ñooñu la ñooñu est-ce que ces ministres là sont plus compétents que Aïssatou Diouf ku nekk ak chance ñeena ci ñoom la dama ne daan nañ tànn ministre loolu de Abdoulaye Wade ngir koo def ngir ngëm-ngëmam su fekkee ci ngëm-ngëm rek la ak taxawaay bu am solo gëm nit ki gëm lu muy di ko défendre di défendre réew mi bu doon ci loolu rek la ñuy fale ministre lañ ma ko fal lañ ma ko bu yàgg yow ban ministre nga bëgg yow ñu jox la ban nga bëgg gën man damaa bëgg ban ministère laa bëgg ministère lu lu lu ma joxoon ko ah yow kay da nga bëggoon a bokk lu Macky Sall wax ne lii la président ma dagg ko. yow ban secteur nga xalaat ni buñ la ko joxoon di ko doxal normal. y' a secteur ici au Sénégal. boo xam ne man mënu ma ko doxal. léegi man xam nga lu ma bëgg la léegi lu ma bëgg a laaj. amu fi voilà léegi ma bëgg a laaj man. li ma a laaj xanaa xam nga man nag laa mënut a gaa gérer. xanaa yow finance. ak budget. xanaa yow yaay moom du ma ko laal finance égal créé. waaw mais leneen lu dul <laughs> finance ak. waaw benn si xanaa yow maay Messi football ñuy football. xanaa ñi politique yaa ci gën ay dama dul laal loola rek ma waaye dama laa bëgg a wax ne la ñun assemblée nationale lañ nekk kenn ku ne xam na sa morom waaw ku jóg di plaider de waaw na koy làkk quartier tek ko Sénégal yi la dégg ministre la déglu xam na ñu dégg tubaab ak ku dégg tubaab léegi man opposant xam nga bu fekkoon ku dégg tubaab dong la ñuy fale kon du ma nekk assemblée nationale du ma fa jël ndaare léegi opposant yow bu doon défendre la cause des sénégalais rek la kon du ma jël ndaare assemblée nationale kii sa xarit la kon du ma jël ndaare assemblée nationale je fais partie des députés <laughs> les moins rémunérés baax na assemblée nationale je fais partie des députés qui de carburant et pourtant bu doon compétence rek la kon kon kon kon kon fañ nekk naa fa léegi Cheikh Ndiaye kii sa xarit la wax ko dëgg. waaw dëgg mooy lan nee ko mi ngi erreur. waaw ñëwal parce que li muy def ni ay penalty la. Ah. eh j'ai vu des ministres depuis ma ne ba Sénégal nekkee Sénégal ba léegi fan yu ministre bu jàngul ay ministre yo xam ne amuñ certificat. <laughs> waaw léegi. waaw boobu ban ministre yoo xamante ne nag. waaw kon jàng nañ ba université. da bu ñu la wax si je verbe complément. yaa ngi wax ma lay tere ngay continuer. <laughs> maay wax waaw waxal dama ne. waaw am na ministre yoo xam ne. ate rek yaa Rasulullah xam na ne euh, bu ñu ma tàggu woon duñ ne dominé te tane wuñ ban pouvoir la seen pouvoir nee na pouvoir yëpp nee na ministre yoo xam ne ma ne yaa dugal ministre Macky Sall président bàyyi leen foofu léegi ma ne yaa ministre ngir xam-xam baax na bàyyi leen foofu ah xam ministre nga continuer ministre day am relation amee xam-xam ministre nag day am relation am xam-xam loolu laa wax dégg nga dama ne dama ne am na ñoo xam ne tànnuñu leen ngir njàng mais seen relation yow ah, ba nga am yow après yow yow yaa ngi doog génn déggul ma la yow yaa ngi eh, eh, ak président yéen ngi doog génn eh, bitim réew yaa ngi doog dugg avion ngëm nga doog dugg avion yaa ngi doog jaay prêt Gaz waaw ñawal <laughs> ñooñu ci ngonal boobu ba léegi ay ati at mhm. ñu leen nuyu bu baax du nuyu suñu xarit ba madame Coulibaly so honorable ñii ay doomi réew mi ñoo ko moom ay doomi réew mi ñoo ci liggéey mhm. nangul nañ leen seen sécurité. nangul nañ leen li ñuy def ñu jox leen certification. ISO certifié leen ISO. 9 kilos baa ngi nii. daj dëpp daj dëpp gi. kii sakkan na sakkan na am na sécurité. te waaw c'est très important loolu. waaw sakkan na kii mooy thé forte. booy dem dinañ la ci jox nga yóbbu ci. am na bu foor bi. moom bu foor bi la bëgg. am na bii nga xam ni mooy sympa bu oyof bi yow nee nga doo naan bu toj dëkk bi sax sympa bi sympa bi waaye nee na moom bëggul bu oyof xam nga bii bu feor bi waaw ñëpp xam nañ ko xam nga loo li nga xamagul waaw sympa bi secret bi ci ne waaw kii mooy naanaam tàngal bi ngay gis ni waaw mm-hmm. mooy naanaam warga bii moo gën a sell ci warga yi waaw oyof oyof mm-hmm. set wecc doo am di daj dara si gémmiñ te am na sax ba nga xam ni foo jàpp sa loxo rek xëcc mu ubbeeku doo ko ŋànk doo def dara. sympa dafa sympa dafa wuyu turam moo sympa moo sympa seex nag <laughs> Cheikh gisoo sama gan giñ ma tegal nii. waaw ñëwal sàmm ñi ñan la. ah waxal tur bi. waa kii la kii. la tur bi ah. mu ni Copras Water. Koolaan. <laughs> ah yow da nga nekk député nga bi jox ma euh, dossier boobu. <laughs> ah mbay indil ma dossier. léegi wan ko ko kii Pros ah yow eh, eh, yow dañ indil sa kër. du xam-xam kii ma ñëw ci waaw kii prost gaz bi kii lañ lay indil kii. waaw dama ne gaz bi moom laay toggee d'abord. ah gaz bi. ah yow tamit teg si war a gën jeex na jeex na nga nga ñëw ci kii prost. yàlla huit heures ma di nga xaar ma ubbi ma ma jënd nga ñëw ci kii prost water. kii prost water. voilà Cheikh kii prost lu muy def. moom dafa tax kenn jëlatul ndox ci butéel. Mm-hmm. waaw lépp mi ngi ci biir. waaw ci robinet ba. ngay branché sa sa raakool. waaw ca robinet ba mu def direct fii. fu ñu toll ni appareil ya nekk ne gis nga yéene ñu ngi ci biir ñoo koy segg sellal ndox mi ba mu sell. Mm. waaw su la neexee nga bës bee. bu xonq bi bu xonk bi nga am ndox mu tàng jër. nga defar café mm-hmm. nga defar sa kafe naan. bu la neexee nga bës fee. pour naa wax. bu neexee nga bës fee. waaw nga am sa ndox mu sedd guy. waaw entreprise yi ñëpp fu ñu toll nii lii lañ leen conseillé. xam nga yéen yi nga gis da nga daan gis butéel ci kawam. bi amul butéel ci robinet ba nga koy branché directement. mu filtré ko. ñu filtré ko mu sell bu la neexee mu tàng bu la neexee mu sell xam nga lu ci gën a neex. waaw du jël dara ci courant. du dara ci courant. xolal mi ngi nii xolal bii nag mooy pour kër gi. waaw nga robinet ma ngi nii. honorable wut si nag. wut si eh, non non non damay wax ak damay wax directeur bi. waaw kii. guerrière la. waaw xam nga ñun nag bu ñu amul téeméer ñu mel nii ci réew mi. waaw affaire yi marché te dëgg rek tax leen a jóg. dese na ma sama ndaanaa de affaire yi marché kon dina ñëw Cheikh la nag léegi mu ah, ñëw ci jeexagul jeexagul wax suñu xarit yi dañuy wax ci suñu xarit yi ah. jeexagul jeexagul de léegi lii waaw Cheikhouna Mbacké trading kii mooy poudre magique sourire kii defe naa dootuñu ko présenté kenn léegi poudre magique sourire bi am rak dafa am rakam ñu tuddee ko liquide magique sourire maanaam bain de la mhm. soo broso ba pare nga jël sa bain de bouche li ci am solo ba am ci solo mooy dafa concentré jëlal benn pot bu ndaw def ci ndox nga pis ko ci yëngal brosse pare galax na ko dem. Mhm. vingt quatre heures vingt quatre heures sa gémmiñ day am xet gu neex ànd ak fraîcheur bu extraordinaire. am na solo soo demee soo demee Touba Sandaga yéen ñi assemblée. soo demee Touba Sandaga. suba ba ngoon jot te duñ gis El Hadj waaw soo demee Touba sa soo demee Touba Sandaga. troisième étage. Touba Sandaga troisième étage. li muy wax ëpp na Cheikhouna Mbacké trading am na foofu. mbaa supérieur yi nekk fii yëpp. boo ci dem am na fa. waaw Ndiaye li muy wax. dégg naa ko walaay léegi muy ba waaw. da doon tëkku naan ndax émission bi dafa jeex. waaw lan la bëgg leeral moom. man ke damaa ko bëgg waaw laaj leen rek man. a mm. par Macky Sall. ci ëpp à part euh, son excellence. Ah, président de la république. waaw Macky Sall. Mm. ci opposant yi. loolu saa neex sa otage gi dafa dafa oyof quoi. waaw c'est pas ah, bi la naan bii boo demee sa kër ñu defal la bu diis. yow yaa ngi war a liggéeyi suba kay naanal bu oyof. man liggéeyu ma suba. Ah, ah suba du ah, suba amul période man kër may wër ki télé yi rek fi ne nii. ah di wax wii bi laa di jënd. waaw léegi ñu deux cent huit. moom la ñuy way bu émission bi di jeex. léegi ma ñëw tuuti foofu à part euh, son excellence. waaw yi. waaw kan nga fi gis woon nee nga da ngeen am deuxième mandat. à part moom kan nga xalaat ne yow kan nga xalaat ne war na mën a doon président de la oh, république excellence réew moo boo kan xam nga boo may wax tellement xam nga Idrissa Seck ngi fi waaw naanal ba pare soo ko teg mais pour lan mu may laaj naan ma ban kan moo kan moo mais moom deux mandats la bëgg a def ah deux mandats ci kan nga am yaakaar kan kan moo bëgg a def deux mandats yéen ah, deux a def waaw bu ñu defee deux mandats kan moo ko remplacer waaw doon ñii de ñan lay doon ñan lay doon Idrissa Seck sàcc na xaas bi woon ci. xoolal waaw waaw waaw nañ jeex. tëj leen caméra yi. kii ngeen def émission bi jeex na. jeex na jeexul jeexul xam nga kii kii li mu nekk assemblée nationale la bëgg a def ci kër gi. kenn du fi wax yoon. damay doon damay doon damay sàcc leen kenn. waaw waaw léegi toog leen yéen ñaar ñii doo leen sàcc. waaw léegi waxal te bu ma ci dugal waaw léegi waxal te bu ma ci dugal. <laughs> dugaluma la ci xoolal ñaar ñi doo leen sàcc. bu ma xool kii tamit du sàcc. waaw léegi sàcc ba. waaw mooy paa bu gàtt bi. waaw bul tudd tur après waaw gàtt bi waaw te ñuul te reetaan te sadik nag nga ñëw ci keneen ni muy reetaane noonu noonu la sadige waaw génnal foofu ndax sàcc la ak kan sàcc na fi 42 milliards ko ñu defal ko fi noonu ba bii ba suba sambu dem fekk Karim Wade dem fekk Karim Wade ne ko dama nga jëli xaalis ba Karim Wade doon yóbbu mu Karim doon rawale xaalis mu dem au lieu mu indi xaalis ba mu daal di jël xam nga ba daal di ñi naan télé ki prix croyé daal di raas xaalis ba. andi paa bi ne ko ana sama xaalis yow dañ lay porté plainte may ma mu ne ko waaye yow loolu laa sawar. mu ne ko ana sama xaalis may leen ci mu ne ko dimbali ma. waaw yoruma seen xaalis. waaw xaalis ba xale bi di ko doon bëgg a te su rawoon du ma ci am. jox tàngal naa ko léegi nañu ko lijjanti. le premier togol de Rebeuss a eu lieu ici au Sénégal kenn fàttewu ko. ma ne kooku. du moo yéen ñu ngi yàq émission bi. du kooku du kooku nekkul ne kooku. Ah. def bu ne nga boobu. Ah. barke de boo njaay ah. un passé récent. dans un passé récent. du kooku mooy ñëw ne. moo bëgg a jiite léegi. ma ne ak kan ah yàlla dafa defoon nag ñu bokk coalition la yow laa li la tudd ma seen tur Souleymane Ndéné Souleymane Ndéné Ndiaye nee na day déposé de. du am dara. du am dara. Mm-hmm. waaw léegi Khalifa Sall. Souleymane Ndéné Ndiaye. Khalifa Sall xam nga nag xam nga loolu leen nax. mooy président Macky Sall dafa jël nguur gi ci li mu gën a nekk gën a ne nooy nepp yàlla rek ñu tàcc ko. waaw léegi Khalifa Sall mu ànd ak ay mesures d'accompagnement. léegi Khalifa Sall sëriñ ñëpp. Khalifa Sall nit ñeeg. waaw wuyul Khalifa Sall sax ne da ne waaw. ma la wax les maternelles rek lay distribuer mu ñëw fii yàlla def. waaw mu gagné Dakar par erreur. Hmm? mu defee ne moomu Sénégal ko bàyyi Diouf Sarr laa ko bàyyil moom. ka may Diouf xale bu dëkk Yoff xale bu dëkk Yoff. mu ngi koy bëgg a rey léegi ak ak nekkaat président moom xam nañ ko. waaw duñ ko bàyyi booy bi ci rëbës. waaw booy bi ci rëbës mooy ñoom seen parti. amul numéro 2 amul koo xam ne fu. am nga numéro 2 on n'a pas besoin de numéro 2 ndax. xam nga li tax waaw président ko numéro 2 numéro 2 bu paree da ngeen tas parti bi koo xam ne mooy nekk président de la république xam nga numéro deux bu ñu ko amoon tamit mu nekkati objet wu débat xam nga bu ñu des nga bu des léegi loolu du am xam nga léegi lu des ay xam nga lu des léegi defar Sénégal ba nekk ci raay normal waa Y'en a marre waa kay a relance train Dakar Bamako bi waa waa Y'en a relance train ba Dakar Bamako ah. ak Sénégal yi mu defaraat leen Sénégal réew muy dox ah. mu am une mobilité urbaine ah. ci oto yi tamit am ay car bato yi sax léegi bato yaa ngi dem ci kii waaw yaanaa maar daal waaw léegi yaanaa maar ñoom la léegi lu ñu wax ci wii no bi ah, ne ne euh, euh, affaire loo ci xalaat ne dañuy def dañuy def marche de yaanaa maar jëm fan ah jëm ci ah, jëmukaay ba dem place de l'Obélisque wala ci ñaane bañ ñaaga maa leen di xaar ah laa lan nga wax ci ñoom loolu du wax maa leen di xaar rek ah lu tax kewuñu dara ci réew mi ngay may wax <laughs> ma mer loo way ah ah yaanaa maar waaw dañu ne woon bokkoon ci xeex bi comme ñëpp ñu ci bokkoon woon ci 65 pour cent yi. faloon président Macky Sall jëlal sàngal bi ñu xeex xeex bi. waaw <laughs> andi beneen. <laughs> waaw ko ba xeex bi jeex. <laughs> mais est-ce que xam nga benn affaire. maa non waaw ko réew xam nga ay xale ya xamadi. Ah, mais waaye yàlla réew nañ. Eh, eh. mais xam nga ñoom waaw moom ñoom est-ce que xam nañ loi ak règle tey kat ñeneen dañoo jàng. waaw oh. ñuy dem ba université. mais xale yi ñoom ñoom daal dañoo defeen daal Sénégal daal ñoom ñoo yore bato ba koy dawal. waaw bay dawal bato bi bato Sénégal ñoom ñoo ko jël dañu nax seen bopp gis nga waaye yaa naa maar. Hmm. ñaani bañ naa xam nga ñoom sax comme neex nga campagne nu la neexee. def lu la neex. ndax ku ne nag libre nga ndax Sénégal pays démocratique la. mais gis nga mu fi defee moyen infraction. di dof doful. Hmm. dañ fa fekk ay jeunes APR yu taxaw yoo xam ne. defuñ ci réew mi lu ñu eh, waxtaanee non bu leen fi indi soulèvement nag. ah c' est eux qui appellent les gens au soulèvement man de kii garde corps yi c' est eux qui appellent euh, au soulèvement. garde corps yi ñoom Bamba Faye am na lu ñu créé ñoom nag ils n' ont qu' à faire très attention. Ah. gis nga Sénégal 2012 Sénégal 2012 ak Sénégal eh, eh, ak Sénégal gii du benn. am na yeneen jeunes yoo xam ni. ñoom Bamba Faye la. nee nañu waa yanaamaar yi duñ fi jóg nee nañu aar sama réew la ñu def. mooy yow mooy garde corps yi tuddee ko aar sama réew. c' est que Sénégal xale dañoo service. ah. waaw wax nga li waa yàlla ma civilisé wuñu. civilisé wuñu. ñooy samay xarit lañ nag. man maay wax fii waa yàlla maar. samay xarit lañ leen wax ne leen. samay xarit lañ dañuy xam nga ñoom dañ foogoon ne. Sénégal mën nañ fi def imposer leur loi. waaw ñoom bala maa dee ñoom duñ député ñoom duñ ministre. ñoom yoruñ dara ci réew mi. mais ci réew mi lañ bokk c'est des maîtres chanteurs. mais ci réew mi lañ bokk c'est des maîtres chanteurs. kan lañ est-ce que yow bokkoo ci réew mi kan lañ chanteur c'est des escrocs. eh eh eh eh, eh, eh, eh yaa ngi dugg ci beneen takk. oo leen xam nga lan nga waroon def na fin. léegi waa Y'en a marre. waaw xool kenn mu toog man toog fu mu jàkkaarloo ba seet. kan lañu chanteur waa Y'en a marre su ma tolloo woon ak ñoom ay at. waaw. faj naa leen ba ñu wér bu yàgg. dañ lay dóor de kon. <laughs> dañ lay dóor de mais c'est dommage que non seulement je suis vieille mais je suis une femme mais si j'avais trente cinq ans. ah je je leur kon gis nga kon ñi. <laughs> te moom dafa sadik de maire bi. <laughs> waaw day day mattatu day mattatu ak yëpp. waaw ñuy def ni ngi dañ koo xam honorable kontaan nañu. waaw waaw li ñu nekk ci réew. honorable tàggatoo dañ koo xam. honorable tàggatoo soog na li ñuy def xam ah, nañu ko. bu ko nettali nag. en ko du ma ko wax waxal ci moom mu tàggatoo mais dof dof la bi. waaw ak wóoye gaar waale. ak a xaxar. waaw ñëpp a ko mën. nañ may nañu jàmm mënuñu tey président dem. bato émergence bi départ na ba pare gare à seli ou celle qui ne montera pas uh-huh. dem na ba pare mhm. dina atteindre un taux de croissance de sept virgule nangam pour cent <laughs> en deux mille dix neuf te évaluation bi à mi parcours dina am en deux mille dix sept dama ne Sénégal départ na ba pare fa mu jëm président Macky Sall boo ko fa yóbbu yaa ngi mitin ñun nag dañuy voté pour un oui waaw léegi dégg ma wax la benn affaire dañuy voté calculé nañu pour avoir un oui sa chronomètre wax luñ fi mës a wax voté ñu aw ci ngoonal yëpp lekk pour que Sénégal jëm kanam voté un oui pour un Sénégal développé waay caméra yi fay na kenn fi pour que président Macky Sall yàgg fi laa ilaaha illallaah ay mandat yi mandat yi mandat alkubéer excellent jërëjëf nga yéen. caméra yi fay na ah, ah, ah. caméra yi fayul. munul fay <laughs> c'est pas possible. mais caméra yi munul fayee nii rek yomb. caméra yi fayoo nii eh, je demande. à une prolongation. la ilaha illallah de 15 minutes. Eh, eh. <laughs> j'en ai pas terminé. c'est la meilleure émission de toutes. parmi barke yàlla am. xaaral ñu may la li fi nekk yëpp nga dem mais jeex lay ma jeex honorable day jeex ca ca a ah, jeex ca assemblée ba à ah. bu foor baa ngi nii suivre ca assemblée bu jeexee woo ma sérieusement émission bi jàll ah dafa sérieusement bu jeexee woo ma émission jeex jeex jeex demal demal demal demal téere maam yàlla émission bi jeex barki téere maam yàlla jeex na demal demal demal jeex na jeex na jeex na ka ana sa chauffeur jeex na na ñëw jël bagage may leen ko ndox may ba tëddi may ko ndox tala lan dégg mu naan alam bi may ko ci bi mu waaw finish waaw thank you ñoo leen doon may seen émission ngonal